ci ju doy waar ay alal ju bari yàqu ci matériel bu bari dem ca ba fii ñuy wax yéen kenn mën laa wax ni lii moo waral lakk bi seeni place yàqu na ci seeni alal dem ca sapeur ñëw na waaye ba tey mënuñoo wax lakk bi naka la dooree ak lu waral lakk bi liñ ci mën a jàpp daal mooy ci marché poisson fa la lakk bi tàmbalee dugg jàpp li nga xamante ni mooy cosmétique yi ne woon foofu jaaykatu cuuraay jaaykatu diw yi ba ci euh, ñi nga xam ne ñooy jaay ceeb ak maynees ak yeneen ak yeneen waaye lu ñu ci mën a dégg daal mooy boobu ba léegi ca deux heures du matin ba léegi ñii di waa sapeur pompier ñi ngi fi def seen kéemtalaay kàttan ñu ngi fi di def seen mënin waaye ba tey lakk gaa ngi fi ay saxaar benn benn li ñu ciy tiit mooy bâtiment ya mënatul taxaw ndax tam lakk gi dem na ëpp ko doole. lu ci mën ni doon rek dinañ dugg ci biir xoolal leen askan wi nga xam ne ñoo ne ci biir ak ñi nga xam ne ñoo ci yàqule naka lañ ko dundee ci kanam. a ko gisandoo. mu doon loo xam ne vraiment lu métti la gis ngeen lakk-lakk yi kantin yu bëri yàq nañ ci seeni alal yéena ko gisandoo mu doon lu doy waar loo xam ne nemmeeku nañ ko fii nii ci marché Zinc euh, bu Pikine laq lakk yi comme niñ ko mën a gisee mu doon lu doy waar daanaka sax euh, mën nañ jàpp ne kenn génnewul sa alal ci biir euh, laq-laq bi nga xam ne am na fi mu doon lu métti aussi ñoo jaaja lay jaajëfal sëñ bi salaamaaleykum mon père na nga def waaw ça va waaw man moom mënu wax de ah, waaw waaw ñu bàyyi suñu papa ñu wax papa ah, ah, man gan laa fi rek damaa seet sama gars yi fii daa waaw sama waaw sama gars ma fi fekke wu ma fi dara léegi laa agsi sax. ci télé yi laa ko gis rek ñëw ñëw xool si waaye métti na daal métti na quand wax dëgg yàlla metti na. xanaa di rek yéen a. ñu ah xam naa ni bari na yàqu-yàqu dama ne maa gisu ko fii waaye boo xoolee lii moo xam ne bari na yàqu-yàqu waaw yal na ko fa yàlla yemale te mu yóbbu seen ay waaw loolu rek jërëjëf jaayëf jawrin dan kàddu nga ci sànni ci mbir mi nga xam ne am na fi ah, na métti kay waaw ñun see tombé rek te ñuy woo démb da daanaka ay deux heures jot na te ñooy dëkk nii si ginnaaw ñoo jeexee affaire yu tàqalee suñu benn dëkkandoo moo ñu ko ah, kon yow fekkee nga ba yi tàq ba si kaw waaw mu ñëw dugg ba si biir nag ñooy doon jàpp si bagage sax am na ñoo xam ne xamuñu leen moo tax ñu doon jàpp nañu jàpp ñoo xam ne ñëw lañ ko ñooñu doon jéem a jàpp seen bagage waaw affaire métti woon na trop démb démb kay ay 2 heures kay bàyyi 5 affaire ay tax kay. Ah, kon moom waaw dëgg yàlla moom ay jàmbaar lañ waaw jàmbaar waaw ñoom fu ñu jaar mu lañ amul mos yoon bi moo xaw a xat moo waaw waaw fi jaafale yoon bi moo xaw a xat moo tax suñu sama yoon yi tamit jéem koo xool pour sapeur su ñëwee kon xam day mën a dugg si yoon bi pour liggéey bi neex loolu mooy problème yoon yëpp nañ ko baare doo am jaar oto ñëw yenn action yi am jaar pour fay lakk-lakk yi waaw ñoom suñ teewoon ci ñëw sax waaye yoon yuñ jaar léegi moo tax affaire yi du mooy jaar fenn waaw loolu lañ si amoon lu si wax rek waaw affaire mbett na trop. non boo ko mos dama fay amoon ay ñoo xam te ni ñu fi ne si marché bi ñoo xam te ni suñu dëkkandoo yi moom si marché bi lañ dëkk. fekk ba ñëw sama kër yaay na nag mu laa mujjee fanaan dama fanaan ay guddi yéen ñu fëgg ñu dafa ñu wax ñu laxale ak si nañ ñu lay jug ñoo jàpp ay deux heures la may ñëw fekk ay fii tàkk boobu sapeur mooy jéem a dugg fee waaye amuñu fu ñu jaar waaw après si mujjee obligé yooyu di arrêté naan dugg naan si fay nañ fee ay jàmbaare sapeur ba seen ndox jeex yéen demaat utiwaat ndox may ñëw wax dëgg yàlla sapeur moom jàmbaar si woon sapeur moom koy day ëpp doole moom. est-ce que xam nga xamante wax dëgg yoo xam ñoo jeex jeex gis affaire yi di taax moom. ndax fu ñu nekkoon ñoom xam ne ñoo jeex gis yi taax si kaw. bu ñu wax ñoom ñu coupé courant yi. ñëw dugg ñu xool si kii ñu. mais ay dégâts matériels rek moo ci am kenn gaañu ci sant yàlla suñu bopp rek ñoom suñu bopp rek. seen dafa lakk. Ah. naka la mbir mi euh, demee ak nañ leen naka ne mbir mi xew non ay ay cinq yooyu lañ ma woo quoi après ne ma marché bi ngi lakk te yaakaar nañ ne sa côté place fekk na effectivement bi mu ñëwee na fekk muy lakk quoi noonu rek laa ko yëgee quoi. lan nga doon jaay. alimentation.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 waaw lekk na ko gaaw. boo ko estimé ci xaalis ñaata la war a. mënuma ko xam problème xaalis bi moom du ko du ma ko sax est-ce que boobu début suba ba léegi autorité yi ñëw nañ pour def ñi nga xamante ne ñu jot am ay euh, dégâts ñu mën leen jàppale ak yu ni mel. non mën naa am ñoom ñëw nañ mais man gisuma leen ko ñu ngi ñëwee ci bagage yi laa nekk yu yàq xam nga doo nekk ci say bagage mu yàq ngay xool yeneen quoi mm. kii mu leen quoi wóoruma ndax ñëw nañ fi la déet.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 dañuy sant yàlla rek. ñaata man cuuraay laa doon jaay ak parfum cuuraay ak parfum mhm. man de cinq heures et ma woo ah cinq heures et lañ ma woo. Mhm. après ma ñëw waaye bi ma ñëwee moom côté bi seteur heures bi yëpp lakk na sama place fii la yem lakk bi fii la yem waaye di ko dalee sama place ba mbaaru jën mhm. loolu yëpp yàqu na moom waaye sant yàlla rek.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 waaw gisaguma kenn waaye waaye ñuy sant yàlla daal alhamdulilah waaw jërëjëf merci amiin yaa nga xamante ne seen i place dañoo waaw danoo bokkoon si seen place lakk. lan doon jaay. man cuuraay laa doon jaay. ñoom moom place yi. moo nekk place yi. ak si biir. ban heure lañ leen wane ngi la. ay vers trois heures et demi quatre ngeen ñëw gis place boo xamante ne yaa ngi ci defoon xaalis bu ah, sant yàlla rek dañuy sant yàlla rek ndax ay boroom njaboot la.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

est-ce que autorité yi jot nañ fee teew euh, ñi nga xamante ne ñoo dëkk si gox bi ku ci mel ni maire bi ngir dimbali ñi nga xamante ne ñoo ñàkk seen alala ci biir la. ah maire bi dégg naa ñëw na fi waaye man boobu maa ngi woon ci biir parce que fi ma nekkoon dafa tàng tamit jotuma kaa gis daal ci activité nga bokk ci ñi nga xamante ne seen place dafa lakk naka la mbir mi demee. waaw mbir mi de man fekk ma foon dama demoon village quoi Louga laa demoon fi ma julli ci dañ ma war a presque ay 5 heures de matin marché baa ngi lakk. waaw bi nag gis naa yàqule naa fi daal lu bari yàqu yàqule naa fi ñaari place lakk nañ fi ba jeex tàkk waaw ba pare xamu xaalis mu ngi fi woon waaw mm, maanaam daal metti na daal metti na vraiment metti na. bu ngeen xam ci ñaata la. ba pare moom mënuma def compta moom parce liggéey bi dafa ñetti place la woon ñetti place la benn heureusement benn bi moom jot a lakk la.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 parce que est autorité jot nañ fi ñëw. non am na ñu jot a ñëw nag waaye nest man xam nga boobu ba léegi moo ñëwee presque ay deux heures de temps lay ci bagage yi di xool xam nga waaw am na fi ñëw moom ah, ñëw rek ñu xool ñu ko gisandoo rek gis ngeen ni mu demee daal metti na daal. waa ndimbal gi moom lu muy def rek lu ñu ci def rek war na cee gaaw daal ndax metti na trop waaw metti na moom metti na waaw. ce que jot ngeen a xam lan moo sabab lakk gi. mais instant yi moom xamuñu lu ko euh, lii moom waaw xamuñu lu ko lii parce que man maa ngi doog a egsi presque deux heures de temps waaw. ñu ngi lay masawu. tey fii ci Sunugal 24 Dakar live ak Sénégal ñoo ngi fii ci marché Zinc bu Pikine fii nag daanaka démb lakk gu métti moo fi jot am diggante 3 heures du matin ba léegi daanaka am na sax sapeur pompier ju fi nekk ba léegi ak police ngir constater li nga xamante ne euh, moo di euh, dégâts yi la nemmeeku nag mooy am na place yoo xam ne dafa lakk ba jeex tàkk. maanaam amul dara loo xamante ne génn na fi mu nekk lu métti ndax ñi nga xamante ne sax jot nañ fee investir ay millions yu bëri yoo xamante ne daal dinañu koy ñàkk ñenn ci ñi nga xamante ne sax waxtaan nañu ak moom ña ca bëri dañ dañ doon daal di sëngeem ndax ku ne xam ne ne daal di investir mu xëy lakk ba jeex métti na lool lañu nemmeeku nag mooy ba tey xamuñu lan moo sabab euh, gile lakk. waaye nag ñenn ñi nga xamante ne sax dañ leen a laaj ña nga naan am na ñuy rumeur yuy daw waaye ñoom ba tey kenn mënu laa wax ne lii moo sabab lakk gi. voilà mu nekk lu métti loo xamante ne daal ñoom ñi nga xamante ne ñoo nekk fii ci marché Zinc ñu ngi koy jot a dund ñenn ñi nga xamante ne nag jot nañ leen interroger la ñu xam le ne mooy sapeur pompier ayu jàmbaar lañu ndax daanaka depuis 3 heures du matin ba léegi ñoo nga fi ngir fay lakk bi waaye métti woon na lool ci ñoom ndax am na sax yoo amuñu woon sax yoon bu ñu daal di duggee ci marché gi ngir mën a fay li nga xamante ne moo di lakk bi comme ni ngeen koy gisee noonu ci image yi am na sax safara soo xam ne ba tey yaa ngi gis saxaar si di jóg sapeur itam mu ngi fi ba léegi ndax am na côté yoo xamante ne ñu ngi nemmeeku ne saxaar bi euh, dañagul lool donc euh, comme ni ngeen ko constaté wala ni ngeen koy gisee noonu ci image yi mu nekk lu métti loo xamante ne ñoom ñi nga xamante ne ñoo ngi fii ci marché Zinc bu Pikine euh, ñoo ngi koy dund nekk na loo xam ne itam lu ñuy faral di nemmeeku la ci marché yi donc une bonne fois pour war nañu xam lan mooy sabab lakk yi ngir ñu mën koo régler parce que chaque année sax mën naa ne wala chaque mois di nga dégg ne am na benn marché bu lakk fii ci Sénégal mu nekk loo xamante ne lu métti la lu yi di dund te en général lu ci bëri euh, dara du ko waral lu dul euh, filu courant yi nga xamante ne euh, dañ koy faral di takkalante loolu sax mooy faral di indi jëye yi nga xamante ne mooy am ci marché waaye fi nga xamante ne nag moo di marché Zinc bu pikin ku ñu laaj daal day wax ne dara xama xamagul sax la nga xamante ne moo sabab lakk gu métti gi nga xam ne daal ñu ngi koy dund jamono ji ñoom ñi nga xamante ne Ah, ñoo di commerçant yi ñenn ci ñoom sax la ñu bëgg mooy ah, nguur bu Sénégal daal di leen di dimbali ndax ah, lañu ñàkk ci xaalis bëri na lool te ñoom dañu am sax ay njaboot yoo xamante ne ci ñoom lañu ñu daal sukkandiku. voilà mi ngi noonu comme ni ngeen koy gisee ci image yi gaa yaa ngi noonu wala ñenn ñi nga xamante ne sax ñoo moom seeni place ñu ngi ñëw ngir. xool li nga xamante ne jot naa bañ a lakk ñu daal di koy jéem a soowee am sax am na ñoo xam ne ñoom Euh, seeni place dafa lakk ba jeex tàkk génnewuñu euh, dara mu nekk lu métti métti loo xamante ne ñoom ñi nga xamante ne ñoo amoon place fii ci marché Jeng bu Pikine ñu nga koy dund voilà ñu avancé ci kanam rek euh, jéem a xool yeneen place yi nga xamante ne jot naa lakk fi ñu nekk nii nag euh, mooy marché poisson bi mu mel ni fii am na ci ñoo xam ne sax ñu ne fii la lakk gi daal di euh, tàmbalee euh, doog a dem fële ci kaw gis nga comme ni ngeen ko gisee noonu ci image yi daanaka am na ci. yoo xam ne sax fayagul euh, saxaar saa ngi noonu ba tax sax sapeur mu ngi fi ba léegi euh, di def liggéey bu mucc ayib ñi nga xam ne sax ñooy commerçant yi nee na ñu ngi rafetlu liggéey bi nga xamante ne sapeur pompier ñoo nga ko doon def ak ñi nga xam ne sax ñoo dëkk ci côté marché bi daanaka ñoom ñëpp ñëw nañu wallu leen ngir ñu daal di euh, fay lakk gi naam sax métti woon na ndax amoon dañu doon am jafe-jafe ki nga xamante ne moo di sapeur amoon na jafe-jafe ngir dugg ci biir marché bi ndax sax amuñ jotu yoon a am li nga xamante ne moo di yoon sëñ bi sëñ bi tur bi naka la. ah. non mënuma wax ah. ni ni bëgguñu ñu wax. borom sëb la da ngay wax wax da ngay xool ñoom nga wax nga wax voilà. ah te jege si. waaw jege si. waaw bi tubi naka la. man daaw la laa ñu fekk leen yéen naam sax fii lakk na mais yéen ngi jot a yi nga xam soble yi nga xamante ne dara jotu leen euh, kii jotu ñoo lakk. waaw mais instant yii ñu mën a def jéem a yoo xamante ne yàlla lakk nañu teg ko ne ndax mënuñ koy xool muy gën a yàqu quoi loolu moo tax ñu waaw métti na trop nag mais nañ sant dañu sant yàlla baax baax. xam ne ñun ñoo ko mën a am mais mënuñoo am waaw ñu ngi sant bu baax. bëri na lii nii am na ay côté trois heures quoi. Mhm. waaw ci woon nii mais daa fekk sax ay six heures laa egsi fii waaw trop. loo xamante ne métti na te mënoo ci dara moom da sant xam ne yàlla borom bi moo la ko joxoon su la ko xañee tamit sant. waaw ak cant la si waaw fii soble lañ fi doon jaay dañu doon importer soble quoi di jaay jaayaat gars yi jaay soble waaw. est-ce que autorités yi jot nañ fee teew ngir dimbali yéen ñi nga xamante ne jot ngeen a impacté ci mbir mi. non xam nga ñun moom dañoo nekk woon tànga tàngooru yaram moo tax ñun mën jotuñoo xam sax du gaa yi ngi ñëw wala ñëw waaw moo tax instant yii ñun. est-ce que xam ngeen lan moo sabab lakk bi. non non ba léegi nii xamuñu doy na waar daal dañoo xëy daal nit moto baa ngi tàkk ñu ndaw ñi. fii marché poisson la. waaw kii côté bi la rek marché poisson bàyyi na la fii marché la. d'accord jërëjëf ñu ngi leen bu baax a baax. voilà comme ni ngeen koy gisee noonu ci image yi moom mi nga xamante ne sax dépôt soble la yoroon donc dañuy obligé. di jéem a jël yi nga xamante ne jotuñoo lakk ngir daal di koy mën a sauver ndax nekk na lu métti loolu ñëw tim sa place ne mënoo ci génne eh, dara waaye terewul ndeysaan ñu ngi ñoo nekk di jéem soble yi nga xamante ne jotuñoo lakk ngir uh, mën koo jël ngir mën koo uh, jëfandikoo mu ngi noonu ci image yi ngeen di gis daanaka ñu bëri ci ñoom seen place yi dafa lakk ba jeex tàkk amul dara loo xam ne sax daal dinañu koy uh, génne ñenn ñi nga xam ne sax seeni place am na leneen lu lenn lu ci jot a génn daanaka yu ci bëri mënatuñ koo sax daal di jëfandikoo ndax état ba nga xamante ne nekk na ko champ bi carte la moom ñu la jël ah